أقل يا خير الدار بي على القريب لذي العرب إلى المجيب

على ذابت الإجابة ملك أبا رد السنايا يا jabalo nilo wanalo وقت الخنايا ثم جعلوا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 يعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين الدين حنيفا ولا تكونن من المشركين mbokk yi asalaamaaleykum ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di leen jox seen wàccuwaay te am mbégte bu baax ci bis bi sant Serigne Moudou Mamoun Alaaji Mor Gueye ca Kasoor di ko def wax dëgg yàlla di suñu waajur di lépp xam ne moom comme ni mu koy di faral di waxee saa su nekk bis bi li ko waral ak li ko sabab kenn ko ne li ci ëpp solo ñu bari xam nañ ko bu ko ñëpp xamul ñu bari xam nañ ko wax dëgg yàlla kon loolu daanaka moom jëruñ sax ñu ciy delluwaat waaye wax dëgg yàlla am na solo am solo goo xam ne bi ñu xëyee wax dëgg yàlla comme ni mu ko li mu ko yitteelee xam ne alxuraan rek moo ko ñor waaw alxuraan moom moo ko ñor mu xëy ay neuf heures demi ñu tàmbali alxuraan ji wax dëgg yàlla jàng nañ 28 kaamil yoo xam ni ànd koog mbokki daara yeeg mbokki taalibe yeeg ñëpp rek ñoo xam ni kenn ku ne fesal nga ci say yéene yoo xam ni bëgg-bëggu Alaaji Mor Gueye moom day say bëgg-bëgg ba kenn ku ne am na foo jógee ci wàllu ni mbokki ngéen yi yeeg ñëpp mbokki Tuubaa yi mbokki Daaru Salaam yi wax dëgg yàlla ak waa Kastoor ñëpp àndandoo nekk ci alxuraan ji loo xam ne ñu yaatal ko lool lool lool moo tax am na solo lool ñu jàng 28 kaamil loo xam ni wax dëgg yàlla moom alxuraan moo ko ñor danaa moom bu alxuraan ji jàllee daanaka leneen li ñu def lu ne day kii rek waaye alxuraan ji moom moo ko ci yitteel moom ndax alxuraan da ko cee fekk sax ndax saa boo xëyee wax dëgg yàlla daanaka bu ubbee balaa wax ak kenn ci alxuraan ji lay nekk ba une heure jot keneen ku muy recevoir sax la recevoir wax dëgg yàlla waaye loo am solo la loo xam ne jàng nañ 28 kaamil ci kanam tuuti nag des na tuuti waa bu ñu jàngee xatmu ba pare xam naa ni bernde yeeg yooyu des na ñëw ak sëriñ bi bu génnee boori tàkkusaan yooyu waxtaane muy sëñ Sidi moom sëñ am waaw wax dëgg yàlla moom it teew na ak sëñ aas ñoom ñoom ñëpp rek wax dëgg yàlla am nañ ci mbégte bu baax daal ñu ngi ñaan daal alxuraan yi yàlla na ko suñu borom nungu ci barkeb seex na Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul suñu borom barkeel yàggal fi alaaji Mor Gueye yàggal fi ñëpp rek waaw sëñ Muudu Gueye mi nga xam ne tamit wax dëgg yàlla mooy suñu xalifa mooy lépp moom it ànd ci lool ak liggéey bi ak taxawaay bi dox ko waree waaye am nañ ci mbégte lool ñu ngi leen jaajëfal bu baax a baax a baax wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima salli bi taslimin ala ayni nahim wa sayyidil kawnayni baasitan nahim salli bi taslimin ala ayni nahim wa sayyidil kawnayni baasitan naxiim salli bi tasliimin alaa ayni naxiim wa sayyidil kawnayni baasitan naxiim faali wa taabi wa animi bilaadan yaa xayra mubqin munimi salli wa sallim yaa muniilal birri على الذي سميت عين الغريج وآلي وصحبي وبالبرور جد لي بلا عداوة ولا غرور صل وسلم يا إلهي على نبي الله صلى الله والآل وصحبي بلا تناهي يا من حماني عن المناهي yaa man lawul amru ka mislil xalqi salli alal muxtaari saadil xalqi الأمم وسلما عليه في الآل معا سحابه يا من دعائي سمعك صل بتسليم على إذ العرب ورافع رتب كاشف الكرب وآلي وصحبه ولتحمدي هذا النظام حمد مغن صمدي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 jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaaraam maam Cheikh Ibrahima Fall jarul ak maam Cheikh Anta mi sunu bunt coon Serigne Touba waaw waañ bi sunu borom dafa taxoon ñu dénk ñu ko eh, ki nga xamante ne mooy def cant yi nekk sunu waajur wu góor di ko def mu taxa ñu war a ñu tax def ñu jëwrinu waañ mag maag maam Thierno mii di sama rak topp ci man ñi def eh, nekk jëwrinu waañ yi yor ci waay organisation waañ bi waañ bi nag nu mu tëree mooy que ni def nañ fukki nag ak benn benn gëléem def xar ay xar def bëy def ginaar ni ko suñ ko doon defee ci 18 safar maanaam ginaar ba gëléem moom lañ fi def jaa ngi fi ay kaami alxuraan def bernde waañ bi nag nu mu tëree mooy que ni biig lañ commencé eh, defar ay bernde togg jox gaa ñu def guddi Cheikh Ibra tey bi ñu xëyee jàng alxuraan jox nit ñu ndékki ba suur dafa leen café ak mburoog ak ndawal jox leen bi ñu xëyee def nañ fukki mbana ak juróom-ñett yoo xam te ne moom lañ def añ fas yéene def ñaar fukk ci reer boole ko lépp loo xam te ne murit dina ko yittewoo ñu war ko def loolu moo sabab ñu def ñu jëwriñu waañ wi ànd ceeg mbokk taalibe yi daayira yi fi nekk yëpp ñu ànd ak ñoom ci bis bi fas yéene laxasaay di sàkk ngërëmal suñu borom nga suñu ngërëmal suñu waajur ndax mag moo xam te ni 1925 nga jébbali Serigne Touba mu boole ak maam Cheikh Anta ànd leen ëllëg ngeen xam may kan ah, lu doon lu mu doon suñu waajur bu nekkoon suñu waajur yi dinañ ko wëri kon dañuy dolli santaat yàlla santaat Serigne bi ba mu nekk suñu waajur ñu koy tudd duñu tudd waaye ñu luñ ci leen ndimbalu sëriñ bi képp mooñ tax li mu wax nit ñu bari mën nañ koy seede ñu nekk ci bopp daara ji ñu def ñu jox maam Thierno Guèye mu yeggali ko ci ci ci wàllu organisation waa ji comme ni ko sëriñ ba lay waxee rek ñu ngi delluwaat di sant sëriñ Tuubaa baax a baax a baax suñu suñu borom mayee ñu fekkee ko tey ñu fekkaat ko déwén ñu ngi ñaan suñu borom mayee ñu fekkaat ko déwén fekk ay déwén yi bëree bëri bëri bis bi nag lu mu demee mooy bisu alxuraan la bis boo xamante ni dañ ko sakk rek ngir terale ko alxuraan ak sante ko Serigne Touba waaw ndax sunu waajur bi ñu moom amul dara loo xamante ni ñor na ko ci àdduna lu dul jàng alxuraan ak kennal Serigne Touba waaw rek moo ko moo ko ñor kon luy war a taxawaay ci bis bi dañ ciy taxaw ñun nag duñu ay doom ay taalibe lañ ay taalibe lañ ay jaam lañ. moo tax dañuy futteeku mel ni ñëpp mel tax suñu ndig nekk ci waaj fas yéene ci liggéey ba keroog mu ñuy yeeku ba keroog liggéey bi du nopp ñu dogal ñu dogal ñu dogal ñu ci waaj bi ñu fas yéene def fukki mban ak juróom-ñett ci añ bi def ñaar fukki mban ak ñaar ci reer bi démb defar nañ ñaari gàtt togg ko togg ko reer jox ci jaamu yàlla yi nekk ci gox bi xëy suba defar ay ay berne wàccee fi kaamil togg fi laax joxe ko xeet ñu ngi nii ci liggéey bi te ñu lañ ko fas yéene jàppee ba keroog bis bi busharatan azimatan li ahmada wa salli yow wa salliman alayhi fi alihi wa man numi ilayhi wa dafa bihi qabla tawajjuhi al-ayn إلى سوى قارئه أنت المعن واجلب لمن يقرأ خير مراد واسلكه يا رب الورى خير مراد واجلب لمن يقرأه خير مراد واسلكه يا رب الورى خير مراد وأب لمن يقرأه ما يغبط به سواه يا جميلا ينصت yaa dal bilaadi wal ibaadi salliya wa salliman ala nabi wa kulliya fi alihi wa sahbihi wal tarfam إليك سعي برضا يرتفعا يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله قد حمدك سيدنا محمد ختام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن وآله وصحبه والتجعل ذا النظم قارقا به ينجعل وآله وصحبه والتجعل لأن المقارق بي ينجيني يا من أمرت ذوي الإيمان كل أمور بأن يصلوا على المختار في الرسول يا من أمرت ذوي الإيمان كل أمور bi ay yufallu alal muxtaari fir rusuli min qabalan na salaatan qad lafal ñoo ngi ziar ñëpp ñoo nuyu mbooloo bi yëpp di nuyu nag yow sëñ bi yow mi ñëw te sëñ xabaan jaxate yebal la fi kon waañ mi suñu taxawaay mooy rek gëm ne tey maam Cheikh Anta xewle gëm ne tey borom dërëm borom a ngërëm a xewle gëm ne tey maam Cheikh Anta dafa àndoon nag suñu baay. mu fiddali kóllëre googu du ko mu sab ay te lu mu ñëw ñu ci ànd ak moom. rey nañu gëléem rey nañu nag rey nañuy xar la mu defoon rek borom dara ak gërëm daal la nga ca déggoon la law ak i ganaar lu lox fi luy dox rek rey nañ ko ni mu ko defee woon ndax suñu baay gëmul lu dul maam Cheikh gëmul lu dul borom daaru salaam. ñuy ñaan nag moom mi koy def mu yàgg fi lool te wér. ma ne ko waa daayira bi it ñu ngi leen di gërëm sonn ñu tàyyiwuñu kasoor daayira mbokk ñëpp ñëw kenn sonn nu tay wu yor waañ wi ñu ànd ak ñoom fas yéene takk ndigg yi dóor waar ba lu nu sonn rek chaque ñu yàlla may ñu rek ñu dem yàlla na yàlla yokk xéewal yokk wér ak wér leen sant nañ leen gërëm nañ leen gërëm nañu ñëpp sant ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ndax ñëpp suñu mbokk yi suñu dëkkandoo yi ñëpp ngi ci waañ bi takk ñu fas defar ñëpp teral ñëpp berneel ñëpp lool rek lañ siy ut yàlla na ñëpp a bég yàlla na ñëpp a bég yàlla yokk xéewal yeeg sutura yi ñetti la ñu commencé woon di ko toggee kër maam Diagne léegi nag tubaab fakkal la gis nga mbana yi ñu ngi ci ñaar fukki mbana ak nangam booleeg yi ñu commandé waa Mbàkke Kajoor a ngi fi waa Touba ngi fi ñëpp a ngi fi waa Poroxaan a ngi fi ña nekk Italie ñëpp ngi fi dëkkandoo yi ñëpp ngi fi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaanal suñu papa ji nag

Touba tay ba siyaare Touba borom ni borom Daaru Salaam ak gaawaan nu ngok ku ñu màggal borom Daaru Salaam yàlla na tàggoog bàkkaar ci barke Sëñ Bamba tay ba kababiyang baba Rasulullah Touba barke borom Touba waradanti ala jonen ba gurgo rango di bamba waradanti ajonen ba ajonen ba watakam lalai tangan Seex Bamba takkal na la ne daa yi baatum amul ku koy tekki mag ku dul borom kunga ne koy tekki Seex Bamba takkal na la ne daa yi baatum ab ku koy teg yee ku dul ku ram na la bamba takkal na la Cheikh Modou Mamoun man Cheikh Modou Rokhaya baax Cheikh Borom Serigne Touba waaw bis bi de euh, dafa nekk bis boo xam ne bisu sant bi la Euh, sant sëñ Touba sant sëñ sëriñ euh, sëpp daal mboolem ko sëriñ Touba euh, masa tarbiya rek ñu ngi santaale si bis bi maanaam sunu sunu maam moom da koo liggéey waaw ndax mas nay fekk fu ma waxee ne ma am ngone moom ñëpp siy jaar waaye ku si yàgg ku ne ab saay saay ñun nag dañu ñaan yàlla bu ñu yàgg soon ngone ñaan sëñ Touba mu doon nañoo dimbale ba bis bii mu yàgg suñu loxo ba ñun ñu koy defaral suñu bopp ba lépp luñ si bëgg suñ tubaab euh, defaral ñu ko waaw parce que tamit seen kii bi suñ suñu borom gën koo jàppandal la waaw euh, sant nañ si tubaab suñu xol nag moo fees jamala woolu woolu sabran jamilan baka yaa wakirlu jamala woolu woolu sabran جميلا مكي وكيل شمال والو شمال والو الول ذمرا جميلا وكيل شمال والو ولا زمرا جميلا مكي وكيل باي شيخ مدمام عمرا جميلا بك يا وكيل ملول ذنبا جميلا بك يا وكيل جمال صبرا جميلا بك يا وكيل يا ول رب الارض